Euh, comme ni nga ko waxee bëgg nañ daal vraiment maanaam policiers yi ñu koy xam policiers yi nga ñu jàppale ñu ci suñu wàllu saal yi parce que wax dëgg yàlla xale jàmbaar lañ euh, ñu ngi def résultat mais daal fi ñuy jàppale ci bagage daal am na solo trop daal. beneen ci blanche jaune verte bleu foofu lañ jëm maanaam kenn ku ne da euh, boo passé blanche yaa ngi jaune boo passé jaune yaa ngi dem vert.

matuwaay boo xam ne tey bu bu ñu fi nga nekk daal maanaam moomulo ko dañ la ko abal pour suba suba mën nañ laa génn lool vraiment euh, war nañ ci jàppale surtout ñi nga xam ne ñoom lañ bokk a nekkal fii ci région bi. c'est ni mu waxee directeur technique sport karaté club troisième dan euh, li ma ci yokk tuuti rek euh, mooy accompagnement bi nga xamante ne bi moom la ñu war a accompagner moo ci des. te loolu depuis bu ma yeboo ñu ngi karaté ba léegi moom la ñuy jooy c'est vrai que nag am na ci ay ay ay avancement tuuti mais par rapport ak suñuy liggéey vraiment dafa des lool lool. Euh, championnat du Sénégal ñu ngi pratiquement duñ ci faral di participer ndax manque de moyens élèves yi ma sax seen euh, fay mais pour nga ne leen kaay la ñuy dem championnat seen parents yi def ci problème la

loolu vraiment du avancé karaté bi du avancé karaté bi wax dëgg yàlla dañu bëgg nag fu àllo ñu bu baax a baax a baax a baax suñu karaté dafay xaw a soxla aujourd'hui à part loolu bon euh, fii au niveau de Kaffrine aussi suñu jafe-jafe mooy yenn événement yu mag yi pour ñu am fu ko defee problème xaw ma kañ lañ fi gëj indi fédération sénégalaise de karaté pour ñu defee suñu euh, championnat yàgg na parce que amul benn lieu boo xamante ni bii mën nañ leen fi euh, andi pour ñu mun ko amul lu dul ci terrain yi wala ci stade yi ah dafa am ay compétition yoo xamante ne bii dafay laaj euh, fermé xamante ne bii vraiment da nga da nga war a def yëpp avec la fédération sénégalaise de karaté sinon du ñëw du ñëw parce que amul espace yooyu yëpp ay manquement la yoo xamante ne bii daf ñuy xaw di sooxeloo suñu suñu suñu liggéey mais sinon à part ça au niveau niveau moom ñu ngi góorgóorlu képp kattan suñu. ñu ngi ci def lu ñu mën ak xale yi gis nga tey ñu réunion chaque fin du mois wala chaque deux mois dañuy def benn passage de grade pour yokk seen niveau mais yokk ko aussi au niveau régional baax mais yokk ko aussi au niveau national dafa baaxoon et su fekkee ne à tout moment bon bu ñu demee ba au niveau national ñu war fa dem ñu am ay blocage toujours aussi dafay gën a euh, jërëjëf merci